Matar Ndiaye maa ngi lay nuyu. moo maa ngi euh, nga nekk responsable national de la massification et mobilisation du parti Gox yu Bees Anta coordinateur section Bambey déjà mm-hmm. naka nga gisee décision bi président Diomaye jël bëgg tas HCCT ak conseil économique social et environnemental. évidemment d' accord nañ ci décision boobu d' autant plus que tey euh, ñun li ñu mën a wax mooy que ni moom li mu def yoon da ko ko may donc euh, juste euh, des institutions yi nga xamante ni la muy jël ci alal bari na te rôle yi nga xamante ni moom lañ ñu waroon a joué maanaam li ngeen di li ngeen doon doyee ñoom defuñu ko pleinement parce que li ci mel ni HCCT am na rôle boo xamante ni assigné nañ ko mu war koo joué mais kenn xamu ba xam rôle boobu joué na ko bala kenn mës ko gis mu joué rôle boobu pleinement lu ci mel ni CSE aussi même chose dañu ko assigné ay rôle yoo xamante ni daf ko war a joué pour participer à la bonne gouvernance du pays mais da ngay gis ne ñoom rôle yi ngeen assigné pour ñu joué ko joué wuñ ko benn yoon donc tey bu ñu déggee dañuy dañuy wàññi maanaam euh, euh, dañuy dañuy dañuy dajale xaalis pour mën a defar ay infrastructure pour mën a def de sorte que sénégale yi dund ci jàmm am ay euh, infrastructure yu mucc ay ñu ne am na institution yoo xamante nii dañ ko fi sampoon rien que clientélisme politique maanaam dugal fa ay nit politique kese moo tax ñu ne nañ ko supprimer mu toll ci ñoom ñaar bu ñu leen supprimer je crois que ça avoisine quatorze à quinze milliards quatorze quinze milliards am na fu mu xacce am na lu bëri lu mu mën ci Sénégal donc tey bu jëlee décision ne daf koy euh, daf koy supprimer ñun amuñu lenn luñ ciy wax ñu dul d'accord ci te xam ne lépp dafay dugg ci Sénégal dafay tax Sénégal gën a naat gën jëm ci kanam. Hmm. est-ce que yow yaakaar nga ni comme que Pastef amul majorité à l'Assemblée nationale est-ce que loi bi euh, dina mën a jàll parce que gis ngeen ni opposition bi euh, ñoo ëpp ci Assemblée nationale. waaye ñun dañu bokk nag ci ñu nga xamante nii dañu gëm ne waratuñoo nangu benn yoon ñuy euh, gàkkantal euh, euh, ñuy gàkkal assemblée nationale ne président bu ko amul majorité rek mënu faa yóbbu dara mu jàll loolu dañ ko war a dindi tege ko ne le ndax d'abord le député nekkul député du d'un parti politique wërta am benn coloration à vrai dire mais malheureusement ñun suñu député yi ñoom dañuy pensé wu trop ci seen parti politique mais député wërta am parti wu lépp luñ ko indi ñuy doxal dëkk bi di doxal Sénégal li war mooy mu wote ko ngir njariñu Sénégal ngir njariñu dëkk bi mais suñ demee ba jàppee ne boo am majorité assemblée nationale boo ko yóbboo dara du du jàll président bu ko yóbboo euh, lu mu bëgg ñu voteel ko ko du jàll su boobaa li tax ñuy wax assemblée nationale ak ñi li tax ñuy wax le rôle du député dañ koy biaisé carrément donc lenn moo mën a xam yóbbu ko député yi en âme et conscience xam ne lii baax nañu voté ko mbala ñoom ñi daan ne ah lii arrangé wu bañ ko voté et bu mu ci mën di doon rek am na ay conséquences. que chacun prenne ses responsabilités. Euh, Mata euh, aussi en même temps bu ñuy wax ni dañuy tas institution yooyu parce que dañu jàpp ni ay institution budgétivore la euh, en même temps fi ñu toll nii président Diomaye Diakhar fay am na kiitu euh, su conseil constitutionnel pour dissoudre l'Assemblée nationale. naka gisee mbir moom en même temps ñiy xaar député yi validé euh, mbirum tas HCCT ak conseil économie social environnemental en même temps mu mel nii desatul lu bari ñu tas assemblée bi. bon sa question bi nga posé nii mooy que le fait que nit ñi di ne boo amul majorité assemblée pour que nga yóbbu sa dara mu jàll c'est un problème donc le président de la république aujourd'hui dafa bëgg a am majorité à l'assemblée nationale au moins que ñu tëggat assemblée nationale bi ñu dem élection bu ko yàlla mayee majorité mu ñëw gouverner ak majorité boobu donc li nga xamante ni mooy article 63 bi moom la utiliser te loolu nekkul jam fii ci Sénégal ndax le président Macky Sall bi nga xamante ni moo génn ci moo moo moo jóge ci bopp réew mi pourtant utiliser na fi article 63 boobu noonu saisir conseil constitutionnel alors euh, euh, demander une question extraordinaire à à l'Assemblée nationale donc tey bu ñu demee ba nga xamante ni bëgg na am majorité parlementaire pour que li nga xamante ni mooy le réformes euh, constitutionnelles et autres ñu mën ko jàllale au niveau de l'Assemblée nationale parce que nag fi mu ne euh, am na am na am na conséquence boo xamante ni bu ñu demee député yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu botewul par par exemple bu ñu botewul euh, la suppression du CFE et HCCT dafay jox un argument de taille au président de la République de pouvoir supprimer aussi l'Assemblée nationale tey bu ñu demee assemblée nationale bu ñu ko supprimer ba war a dem élection législative mhm. mais man bu ma bu ma doon conseiller le président sax dama koy wax mu cumuler ko avec un référendum mhm. boole ko ak référendum ba nga xamante ni toutes les euh, réformes constitutionnelles dina ko mën a boole ci référendum boobu ñu defaale ko ak législative yi bu ko defee bu jëlee euh, bu bu ñu paree ci élection législative bi day jàll directement ci liggéey bi di fi nekk ci ay con euh, di ko sonal et autres là mhm. donc le fait de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale c'est tout à fait normal loi bi ak yoon dëkk bi jox na ko prérogative yi pour mu def ko je ne trouve aucun inconvénient là-dessus Mmh. Euh, Matar aussi euh, livre bilan des 12 ans du président Macky Sall waa APR Benno Bokk Yaakaar fësal ko euh, ñëwaat si réalisation majeure yi nga xam ne président Sall def na ko ci réew mi sa xalaat ci mbir mi voilà man euh, maa ngi wax léegi ne man bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy ñëw daal ne président Macky Sall ci dara man damay wax ne il a bilan def na bilan bu baax Euh, ndax bilan nag li ñu koy wax mooy matériel maanaam li ñu mën a gis ak immatériel li nga xamante ni mënuñu koo gis ci ay comportement la mais ci liñ mën a gis képp ku nekk Sénégal xam na ne le président Macky Sall bàyyi na fi ay infrastructure def na fi un bilan bu baax par rapport aux infrastructures liñ ci mën a wax kay mooy que ni infrastructure yooyu li mu coûté Sénégal maanaam li mu jar dafa cher dafa chair trop mais loolu mën nañ ko nungul peut boobu mu ngi ci calculer am bilan te wax dëgg yàlla am na bilan tey parce que képp ku dugg Dakar ku dugg Sénégal sax dina xam ne infrastructure ñu ci def yëpp am na njeexital ci askanu Sénégal am na njeexital aussi ci citoyen yi donc loolu lu am solo la mais suñ demee ci bilan bi nga xamante ni góonu bu ñuy gis maanaam immatériel mm-hmm. foofu nag ci la ñuy gis ne le bilan moral on peut dire ci la ñuy gis ne vraiment yàq nañ fi yàq bu am solo boo xamante ni vraiment tey bu ñuy wax jub jubal jubbanti yàq googu moo ko waral mooy un bilan immatériel détournement xaalis ak dugg ci yenn njombe yi euh, yoo xamante ni ay ay ay ay ay diin la et cetera yooyu yëpp noté nañ ko fi gis nañ ko fi te loolu ci bilan président Macky Sall lay bokk. donc mm-hmm. pour conclure je di que bilan matériel moom am na ko à quel coût c'est à nous d'estimer ça mais bilan immatériel bi moo ëpp doole tamit ndax gis nañ fi jombe bu nekk des malversations financières par ci par là. des détournements de la ñi nga xamante ni dem nañ ba toog di def bilan ce bilan immatériel aussi war nañ ko ci hmm. euh, laaj la aussi si faat yu bari yi nga xam ne ñoo ko euh, gisandoo muy am chaque jour au au Sénégal insécurité mm-hmm. aussi bi nga xam ne fi ñu toll ni moo tere nelaw bépp sénégalais ban mm-hmm. jàngat nga si am lan ngeen si mën a apporté comme solution. bon li may wax euh, ci insécurité bi nga xamante ni mooy que ni ñun ñëpp ku ci nekk euh, mën nañu wax ne euh, yaa ngi ci yaa ngi ci danger d'autant plus que ñun ni ñu daan dundee moom la ñu bàyyi léegi gendarmerie ak police ñu ngi def seen liggéey mais ku ci nekk xam na ne biir appartement bu ci nekk gendarme mënu faa nekk police mënu faa nekk biir appart biir kër bu ci nekk mënut a am gendarme mënut a am policier mais il va falloir ñun ñi nga xamante ni ay dëkkandoo la ñu rataxal suñuy diggante ba nga xamante ni ku ci am jafe-jafe ñu mën laa teel a wala boo gisee ma wax loolu mooy que ni cas bi nga xam ne moo mujj am mooy euh, euh, euh, feccikat boobu ak mi nga xamante ni ay naat ay ay ay ay xaritam ñoom daan àndal bu dégg bëccëg ñoo ko faat ci biir appartement pourtant am na ci témoignage ñoo xamante nii nee nañ def nañu dégg ay yuuxu mais demuñu wallu ji ndax peut dañ ko tegoon ne ay yuuxu ay foola affaire yooyu bu fekkoon ne dëkk dëkkandoo yi ni muy ni mu daan mel bu njëkk moom la mel ba léegi bu ñu déggee yuuxu même bu dee ne ay solan dinañ dem ñu ñu xool lan la exactement pour xam lan moo xew ci biir appartement bi mais malheureusement tey ni ñuy dundee en appartement boo duggee sa appartement nga tëj ku la seet si boo duggee ak moom si biir bu tëj te dëkkandoo duñu xam si loo nekk loolu moo indi jëye yu bëri tamit di am ba tax na ku ci nekk ci jafe-jafe duñ la mën a teel a wallu askan la mën a teel a wallu mhm. war nañu def de que bu ñu gisee kuy def ñaawte ñu mën koo boole ci ni mu gën gaawee à la police ou bien à la gendarmerie. Mm-hmm. donc sécurité bi c'est vrai que ba police gendarmerie lañ ci yaakaar mais ñun ci suñu biir citoyen yi aussi dañu war a taxaw maanaam di dimbalante am ay relation de voisinage bu baax yoo xamante ni moo ñuy permettre vraiment ku ci nekk ci jafe-jafe ñu mën laa teel a ku ci nekk ci problème ñu mën koo teel a teel a signaler police mbala gendarmerie jot bi pour génne la ci jafe-jafe yooyu. Mhm. je crois que loolu daal ku ci nekk am na ci responsabilité donc il va falloir que ñun ñu gën ci góorgóorlu pour que vraiment euh, jàmm jëlee ci Sénégal pour que nëb su yeeg voilà euh, accident yu bari accident de circulation yi nga xam ni mi ngi am. Euh, mhm. aussi nekkaat beneen jafe-jafe am na sax ñoo xam ne nee nañ ministre El Malick Ndiaye dafa war a tekki ndombal tànkam loo si xalaat. Mhm. waaw euh, moom laa wax léegi ma ne ñiy wax ne El Malick dafa war a tekki euh, tekki ndombal tànkam ñooñu moom dañu gaawantu trop parce que accident du tey la xew Sénégal. bi ci euh, magistère El Malick Ndiaye bi ci magistère euh, Diomaye Faye ci la accident commencé am Sénégal accident yàgg na si am li ñu war a def tey mooy euh, ñu def taxaw seetlu xool exactement accident yi lan moo ko waral ñu jim ko saafara boo gisee ku mel ni le ministre El Malick Ndiaye moom ci li ko li ko li li li li ko gouvernement bi sant mu ngi ci maanaam di xool les voies et moyens yi nga xamante ni war na ko mën a jël pour que accident yi mën a arrêté mais tey boo seetloo accident yi ëpp ci route nationale yi muy am dafa doon ay accident yoo xamante ni ñaari oto ñoo mbëkkante jàkkaarloo ba pare mbëkkante loolu nag buñ ko càmbaree dañuy gis ne yoon yi ci boppam dafa xat xataay boo xamante ni léeg-léeg ñaari oto pour ñu rombante fi normalement dañuy am ay jafe-jafe yoon yi aussi am na ay kàmb yu fi nekk parfois oto yi dañ koy bëgg a moytu ba mbëkkante ñoom ñaar ci foofu gouvernement bi lañ koy interpellé directement à ce mu def ko sorte que vraiment les routes nationales ñu yaatal leen ba nga xamante ni dina yaatu yaatuwaay boo xamante ni ñetti oto sax dinañ ko mën a jaar sans pour autant que laalante su ko defee loolu dina wàññi lu bari aussi ci li nga xamante ni mooy accident yi. beneen mhm. euh, bi ci comportement bi nga xamante ni dawalkat yi war nañ ko am. Mhm. mooy que ni dawalkat kat bu nekk dawalkatu oto bu nekk chauffeur ci nekk. war na mën a xam ne responsabilité moo gàcc ci kaw ay bakkan la yëpp ba tax mu dawal ci tey bakkanam dawal ci lucidité pour que vraiment ñu éviter accident yi parce que métti na lool chaque deux mois chaque trois mois ñu dégg ay bakkan yu wàññeeku te vraiment bakkan dafa sacré doon na loo xamante ni gouvernement bi am na ci responsabilité citoyens yi am nañ ci responsabilité même les passagers parfois parce que da dégg ci oto ñu ne ne ba dem parce que boobu dem rek day ji donc les responsabilités sont partagées ku ci nekk ci ñun war na jël ay responsabilités mais surtout état mu jël des mesures yi nga xamante ni vraiment exiger ñi nga xam ne ñu contrôler strictement afin que vraiment ñu am ay oto yu mucc ayib yoo xamante ni mën a transporter sans pour autant ñu def yenn yenn soxla. kon euh, Matar Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. voilà may fàttali ni Matar Ndiaye yow yaay responsable national de la massification et mobilisation du parti Gox Yu Bees Anta coordinateur section Bambey jërëjëf.